mbokk jullit yi ñoo ngi leen di nuy di leen ziar bu baax a baax di leen dokkeel ci weeru koor wu tedd wi nga xam ne ci la ñu nekk te yàlla dogal ñu nekk ci mujj ñu ñaan borom bi subhaanahu wa taala mboolem lu koor gi indaale woon ci ay xéewal ci ay yiw ci ay teraanga yàlla bu ñu ci kenn ëppale yàlla nañu yàlla xool ci yërmandeem yàlla nañu yàlla xool ci mbaaxam yàlla nañu yàlla xool ci matam nangul ñu sunuy jaamu yàlla te bañ ko xool sunu doyadi ak sunu matadi ak sunu ñàkk koo jooxe ci ni ko diglee moom mi nga xam ne moo aji mat moo aji am yërmande yàlla nañu yërëm ci jëflanteeg ñun ci yërmandeem ja ak matam ga ginnaaw loolu mbokk yi ñu fas yéene dikk ak sunu yóbbalu koor mu jotaay boo xam ne yàlla dogal na bi ñu tàmbalee ci koor gi ak léegi ñu ngi ci jéem a góorgóorlu di ci sàkku ngërëmul yàlla di ci sàkku yoolu borom bi subhanahu wa taala di ko def ay ndolleen muy loo xam ne euh, du doy mukk tuyaaba nga xam ne doy mukk fee nga xam ne fa la jëm muy yowmal xiyaamatul akbar yal nañu yàlla defal tawfiq bu baax a baax a baax euh, mbokk yi suñu yóbbalu koor tey mi nekk xadisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne ba léegi mi ngi jëm ci fàttali li nga xam ne koor moom lay jariñ mu jeexit yi nga xam ne moom lay def ci nit ca moom moo ragal borom bi subhanahu wa taala fedd li ak ngëm defar ak ngëm yàllaam muy lan muy ne koor dafa am ay jeexit yoo xam ne daf ko war a def ci doomu aadama jeexit ja moom la borom bi subhanahu wa taala wax ne uh, kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun ragal yàlla moom mooy jeexit koor yàlla ñu ko yàlla defal uh, koor yëg yàlla fedd li ak ngëm yàlla moom mooy dëgg-dëggi ay jeexitam ndax kan mbokk yi nit ki woor yàlla rek lay bàyyi xel yëg yàlla moo waral ba lekkul naanul yendoo xiif ak mar ca mën a lekk ba suur mën a naan ba màndi te benn doomu aadama du xam ne lekkul naanul kenn du ko xam kon bu bañee lekk bañ a naan dara waralu ko lu ma yëg gu mu yëg yàlla bàyyi xel gu mu bàyyi xel boroom subhanahu wa xam ne mi ngi koy gis yëg googu ñu yëg yàlla ci biir weeru koor yàlla ko yàlla def mu nekk lu sax ci ñun lu sëxeñ ci ñun lu ànd ak ñun sunu ngir gi dund sunu guddi sunuy bëccëg sunuy wéer sunuy wettiliku jamono gi nekk yàlla na yàlla def ak yëg yàlla ci ñun yàlla na def ak ngëm yàlla ci ñun yàlla yàlla def ak ragal yàlla ci ñun ba lépp lu digle ñu di ko def nañu ko mane góorgóorlu ci kem kattan lépp lu muy tere ñu di ko bàyyi di ko wattandiku bu ko defee la Serigne Touba radiyallahu anhu sunu sang ba waxoon ne digli yi yàlla yi digli yëpp li war ab jaam mooy góorgóorlu ci la mu man def ya mu man yëpp ya mu mu yéene ko bu yàlla dogalee nga def li nga man li nga mënul nga yéene ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yéene ab julit moo gën a mat la mu jëf kon boobaa kon yàlla lay daal di fay ca la nga yéene fay gu sëkk ah bu dee loo xam ne yàlla daf koy tere borom bi subhanahu wa taala ah nga bàyyi la nga man lépp nga bàyyi ko loo xam ne yàlla def na seytaane wala bànneex wala bakkan wala adduna man la ba nga def ko nga daal di tuubal borom bi subhanahu wa taala teewluwaat ko delluwaat ci moom delluwaat ci màggam ga xam ne lu bàkkaar bari bari lu bàkkaar rëy rëy borom bi subhanahu wa taala rek moom mooy aji jégle ji inna allaha yaxfiru dunuba jamia kenn du jéggul leen fa innahu laa yaxfiru dunuba illa hu kenn du jéggul yàlla kenn du jéggal ay bàkkaar ku dul moom delluwaat ci moom Sëriñ Tuubaa nee na bàkkaar yi nga xam def nga ko ba noppi tuub ko mook bakaar yi nga deful ñoo yem li nga defoon tuub ko luñ far ak luñ bindul woon ñoo yem noonu la ko Sëriñ Tuubaa waxe woon kon yàlla na yàlla defal tawféex yi weeru koor wi li mu indaale ci ay yiw ci ak yëg yàlla weeru koor li mu indaale ci ay yiw ci ak jaamu yàlla weer koor li lala ci ay yiw ci tàggat ñu ci jaamu yàlla ku ne ci ñun mi ngi taqoo di góorgóorlu ci naafila taqoo lu ci jàng alxuraan taqoo moytu lu man bañu jëw kenn bañu yàq darub kenn bépp bàkkaar ma da ko daw di ko moytu ngir màggal weer wi nga xam ne weer wu màggal la muy weeru koor wi saa boo xamee ne kon génn nañ weeru koor wi loolu nga xam ne moom la def ci jeexee ci ñun yàlla na ci borom bi subhanahu wa taala defal ci ñun def ko suñuy def ko suñu yaram tàggat ko si ba nga xam ne dañuy mel na ñoo ngi ci biir weeru koor suñu ngir gu dund ba weeru koor dellusiwaat ñu waat melaat noonu ba weeru koor dellusiwaat suñu dund gépp mel noonu loolu yomb yàlla yàlla ko yàlla defal mbokk ñoo ngi jéglu ñëpp di ziare ñëpp di bala xaq ñëpp di ñaan yàlla mu nangu ñu suñu koor suñu jaamu yàlla wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. يا غير ضيف الأدى بالبر والمداد هلا وسهلا وترحبا